ñàkk ndax gaa ñi wax nañ yëpp comme que dañoo nekk ci liggéey bi te ki jëf-jëf ji xay na dafa jëf ni nga xam ne noonu la toll ndax ñun bi ñu jógee ba tey keroog bi campagne bi ubbee ci min bi ba sunu joon yàlla tey jii man mii di wax ak yéen amul benn bis boo xam ne dem naa ko ci sama njaboot boobu ba tey déwuma ci sama njaboot ngir lan réew mi déwuma ci sama njaboot ngir lan bëgg senegal gu jàkk waaye démb man de manoon na maa faatu man ndax bi ma nekkee ci kaw oto bi ba jigoo jàpp ma di ma cëppeel di ma wàcce li ma gën a jaaxal mooy nit ku yor fetal ak lu fi ñor bañ koy macc di tiire ma ne waaye lii nu mu demee nii nga xam ne ku ko man di jëf Mamadou Diagne Fada bu fekkente ne yow yaa jëf-jëf ji na la wóor ne bàyyi naa la man personnel ak yàlla te lii nga ma teg man dinaa dugg ci sa biir kër jëflante ko ak say doom yi nga jur man maa la ko man amul kenn ko ci man dara ku yàlla bind ndax mënoo di tooñ nit ñi toog na yow ak sa njaboot da ngeen di am jàmm ñun kenn duñu soqi balu fetal ndax jiwuñu la loolu ñun xamuñu la sax liggéey bii ñuy def nag bu dee bakkan la man dama doon ñaan yàlla billaahi bal bi dal ma ndax man ñi ci dee gënuma leen ak ñi ci tëj kaso te lii ab xare la fowuñu foluwuñu nit ñii di ay kilifa dagg seeni yitte di topp karabaan yi nit ñi nekk ci weeru koor amoo dara loo leen di yéene lu dul ay balu fetal ak ay xeer di toj seeni oto di dóor ay jigéen ngir lan nguurub àdduna loolu dara da koo jarul nañ leen delloo si waat xel yi ñu xam ni ñii ku leen ba ak réew mi lii képp lañu xam mooy lan torturer senegale yi président Ousmane Sonko nag wàccoon na ak ñun yee nañu tey ba dëkk boo dugg xam nga lu ñu lay wax jërul woon ngeen di ñëw ñu noppi nañ loolu nag pérési bi mu koy liggéey booba demagul ci kaso bi te ma waxaat leen lu doy waar ci caravane bii nga xam ne doon nañ ko def moor parking nga xam ne lii dafa nekk mbir moo xam ne ñi ko ñi ko teg programme bi ma wax leen Sénégal nga xam ne jéego bi muy dox Cheikh baara mi nga xam ne jël na exemple laay jël te noonu la demee def ci ay million moor mi ci def ay million caravane boo xam ne ñu ko initié ak ñi ci def seen alal matuñu trois personnes quatre personnes yëkkati ay millions jël ay ndaw jël ay matériel dugg ci àll bi duñ ay politiciens coalition Diomaye fay ñuy liggéeyal président Ousmane Sonko ñooñu bu dul dara sax nga xam ne duñ ay politiciens lébaluñ la loolu yow mënoo ci ñoom dara lu dul lan di diir ay bal man Cheikh Bara dama ne ko bi ma wàccee li ma gis bal bii daw di ñëw. ma maa maa tooge woon ci côté droite man lay njëkk ay rey doog laa rey ndax booba mbedd mi ñu génne ba dal ci suñu kaw jëf ju ñaawe noonu képp ku ko xeeb wala fada xaw ma fada xaw maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla àtte fadam Mamadou Diagne fadam ndax jëf jii mu jëf dagg suñu caravane bii biig ba tey nelawuma amul kenn ku nelaw ñun ñii ñu tëj suñu kër démb ba tey nelawuñu barke alxuraan jóge daaru mufti ay ngumba gi wër àll boobu yépp réeruñu xëdduñu suñuy njabootam ñuy woo naan ba xam dee na dund nañu moom mu tëdd ci ay kilimam ak ay jabaram ak di gundaandaat waaye billaahi doo am jàmm lii nga ñu tooñ nii torturé ñu ngi ñaan ci barke weeru koor gii hmm? ñaan nit de baaxut waaye tooñ nañu nag maa ngi jéggalu ci wax ji man manoon na maa sax bañ a jël kàddu bàyyi mbay jërëjëf jërëjëfati